teggini mooy yooyu ñu wax nag moom la ñuy tuddee ak taalibe ci biir yoonu murid ak taalibe lu ñu bëri baatu ak taalibe lu siiw ci yoonu murid ñu war di ko ak taalibe ak taalibe waaye ndax xam ñu bëri ci nit ñi boole na lan la ak taalibe nga xam ne nga ko xamul te dañoo wax ne femme benn waay bi suñu fan suñu fan mag ne ko ñett ngi yoo xam benn mënut a ñàkk mu ne ko yomb mu ne ko xam-xam mënut a ñàkk mu ne ko ku bëgg a

liggéey bu ëpp ñëpp alal ci yoon bi gis nga ko ci caw kon ab yàqu ak caal ak caal rek am solo kon ak caal mooy ab yàqu mooy li ma tax yar boobu sëriñ bi bëgg ci